ñu ngi dalal euh, Ali Mohamed Sega Camara njiital euh, mouvement pour le parti de la construction MPC xelam itam màcc ci wàllu sécurité alimentaire ñu ngi lay nuyu di am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. jërëjëf euh, Adja Fatou maa ngi lay gërëm di la sant. alors ñu tàmbali waxtaan wi ak tournée économique bi président Macky la doon amal ci seen gox Sédhiou Pakaaw ak li ko wër nga dëkk ci boobu les zones lan nga euh, xalaat ci tournée économique bi donte ñu bari nee ñu politique la yow lu ciy sa gis-gis. waaw euh, Adja Fatou dama ne euh, yaakaaruma mu nekk tournée tournée économique lii ñiy wax ni vraiment tournée politique la mën naa leen mën naa wax ni wax nañu dëgg. ndax réew mi nga xamante ni dund gi dafa cher. njëg yi yombul fenn lépp cher lépp yokk du ci luwaas du ci ci dund yi. boo demee marché euh, da ngay da ngay ci yàlla donc balaa ngay dem naan damay def di def yi tournée politique. tournée économique da nga war a d'abord régler ndax sénégalais mën a am li nga xamante ni bu nu demee ndugg ji marché. mu ñu am ca ndugg bu doy vraiment ñëpp si seen kër mën a togg euh, seen i njaboot lekk ba suur naan ba màndi tant que loolu defuloo ko nga naan dangay ngay dem def defi tournée économique lan ngay dem seeti foofu nit ñi nga xamante seen ndóol dafa yokk ndóol gi moom bi muy jël nguur gi ñama fekkoon ñu ndóol ñeenti million la ñu woon ci senegal moom bi mu jëlee nguur gi ak léegi dafa yokk ci ñaari million ak juróom-ñetti téeméer junni. te gox ba mu dem nee nañ mooy gox bi gën a ñàkk te dañu wax ni gox boobu moo gën a moo gën a vraiment donc nekk nekk ci ndóol donc sénégalais tey jii ci jamono yu ab euh, Macky Sall nga xam ni donc six million maanaam juróom mbenn million ci juróom-ñett euh, euh, téeméeri junni doomu aadama ñoo jànkonteel ak ndóol ñoo jànkonteel ak ay jafe-jafe ci vraiment donc ci dund gi. donc boo xoolee tey jii ñi nga xamante ne ñoo jànkonteel ak jafe-jafe dund toll nañu ci million ak ñeent téeméer euh, téeméer euh, ñeenti téeméer euh, junni ak li ci topp maanaam ñooñu tey jii bu nu bu nu ndékkee du nu añ wala bu ñu añee du nu reer te du nu ndékki donc te fu mu toll nii dem nañu ba yaakaar ni Sénégal euh, fukk ak juróom euh, ñetti réew yuy da yuy daje ci SILS ba ñu ba xasee ba ñu euh, càmbaree mbir mi dañu ne Sénégal mu ngi jëm ci situation bi nga xamante ni dana xaw a jege vraiment donc xiif mënuñu wax ni xiif la waaye nag dana ko xaw a jege. maanaam nit ñi nga xamante ni dañu dinañ dinañ euh, dinañ am ja jaaxle ba nga xamante ni de telle sorte que sax même pour ñu mën a am lu ñuy dund. dana xaw a jafe ci contexte boobu la demee Sédhiou ci contexte boobu la demee Sédhiou te dañu wax ni vraiment donc instant bi euh, bu ñu demee tuuti rek fii la ñaari weer nit ñi commencé di yuuxu vraiment ci biir réew mi ci wàllum jafe-jafe. Mhm. alors ñu des Sédhiou fukki mesure ak juróom-ñett jël na ko tënk ko ci programme d'investissement boo xam ne ci ñetti at la ñu ko lal fas yéene ci def ñeenti téeméeri milliards est-ce que mun nañu jàpp ne loolu bu sottee Sédhiou quand dina fi jaaree suqali ko. waaw mais Fatou xam nga li nga xamante ne danga leen koo euh, diggee ci deux mille vingt cinq février deux mille quinze la leen dig lu bare li nga xamante ne moom la jëlaat tënkaat ko ci dix huit points yi. Mhm. vingt cinq février deux mille quinze ba tey ji 2 mars 2023 juróom-ñeenti at maam yàlla dara defoo ko ci ci juróom-ñeenti at juróom at noo ko mënee def ci ñaari at wala benn at a genn walla loolu moom lan nit ñi war a xalaat nguur gu mënul def li nga xamante ni diggee na ko juróom-ñeenti at nan la ko mënee def ci benn at ak genn wala wala ñaari at loolu xel mu nu ko nangu kon propagande rek la fa demee pour wax na ñooñu voilà donc jàppale leen ma puisque dama fi daanu ci élection législative yi vraiment donc département yi ñaari département yooyu dañu am solo donc par conséquent département bi nga xamee ne muy département Bounkiling benn député la donc xam na ni foofu population yi bariwul mhm. et donc faalewu leen gis nga ni vraiment donc pratiquement dafa ci ay jéego donc ci ngay xam ni dëggantaan jaay du tournée économique la fa def dem defi ji mais dafa dem defi ji tournée politique te xam na mu xam ni problème yi nga xamante ni moom moo nekk problème nit ñi foofu teg nañ ko ko ci kaw taabal bi le 25 février 2015 te damay fàttaliku Diène ba Sarr bu mu nekkoon ministre bi euh, yore woon euh, loolu ci conseil interministériel du 24 février 2015 pont boobu nga xamante ne moom la ñuy wax tey ji xamuloon sax ndax pont boobu nécessité la woon ci biir euh, région Sédhiou te pont Témanto Maronkunda bi ñuy wax Témanto Bambali te damay fàttali ko ni du Témanto Bambali parce que diggante Bambali Bambali ak Diatakunda ñoom ñoo jano mm. Témanto ak Maronkunda ñoo jano maa ngi gis na bind ni waaw diggante yooyu à deux cent trente la ci fleuve bi du benn dëkk huit cent mètres la mm. benn étude defuñu ko ci dara dara dara dara ci boppam donc lii nga xamante ni étude boo ko naree def du nu mun tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti mën nga cee def ñaari at parce que ay fànn yu bare la balaa ngay créer ouvrage boobu balaa di oto yi di ci yéeg loolu yëpp da nga ko war a calculer ak hauteur yeeg yooyu tout ça la donc ak ancrage léegi boo ci tegee huit cent mètres nga def ancrage ci rive gauche bi ak ancrage ci rive droite bi ba ci nekk benn bu nekk bu jëlee sax cinquante ça veut dire que donc ñu ngi ci 900 mètres. benn bu ci nekk bu jëlee 100 mètres ça veut que donc ñu ngi ci un kilomètre d'ancrage de l'ouvrage te bu ñu construire pont boobu te defuñu ci euh, maanaam ay bunt yi nga xamante ne dañ koy tëj ci biir dex bi pour que ndox mu lewet bi euh, ñu bañ ko perte. féete boor féete boor ndox mu ndox ndoxum xorom bi aussi vraiment donc féete boor buñ ko defulee ouvrage boobu amul benn njëriñ. ndax pour jaar foofu oto yeeg saret yi quelque oto ñoo fay jaar ak quelque saret ñoo fay jaar mais li ci li solo bu muy am mooy ñu ref ci ouvrage yooyu maanaam ñu koy tëj di ko ubbi pour mën a bàyyi ndox bi muy dem wala bañ bay euh, def de telle sorte que ndox mu mu mu bu ànd ak xorom bi bañ a dugg ci ndox mu lewet bi donc loolu buñ ko defee mën nañu am ay xeetu ñaari type euh, koom yi nga xamante ni ñoo fay ñoo fay nekk bi nga xamante ni lépp lu aajoo ci wàllum euh, euh, xorom mën naa dem lépp lu ajoo ak vraiment mbay mi mën naa nekk ci beneen mm. beneen beneen côté bi donc tant que defuñu loolu duñu mën a avancer mm-hmm. alors ci wàllu politique jot nga euh, liggéey ak président Macky ba mu demee ca Pakaaw itam euh, yedd na fa yenn responsable yi wax leen ni seen défaite bi ñu am ci législative yi notamment li ko waral bokk na ci ñàkk ànd bi ak vote sanction yi ndax dëgg-dëgg loolu moo waral benn bokk yaakaar ñàkk fa élection yi ci sa xalaat. dama ne xam nga élection euh, législative yi ak élection locale yi. ci benn at bi la. Mm. te juróom-ñeenti weer bokk ba ba nekku seen diggante janvier leen ko def beneen bi ñu def ko juillet pratiquement boo ko xoolee daal juróom-benn weer la alors ci diggante boobu ñi nga xamante ni gagné ngeen fukki commune ak ñeent benn rek ngeen am ngeen gagnéwul ci département wu domp six mois après ñu sanctionné da xam ni du responsable yooyu la ñu sanctionné mais moom Macky Sall la ñu sanctionné ndax dafa diggee ay mbir hmm. yi nga xamante ne def ko ci te ñu rax ci dolli service état bi maanaam nguur gi dañu wone ni que Sédhiou moo nekk région bu gënoon dool ci Sénégal hmm. ci fukk ak ñeenti région yëpp léegi lan la fa def diggante bi mu fa demoon deux mille quinze février deux mille quinze ak février bii deux mille vingt trois la fa def taxawal na fa hôpital def na astut goudron ci biir dëkk bi. def na astut lamp ci yenn artères yi nga xamante ni. foofu la nit ñi ñëw ak defal benn pont Marsassoum jeex na. mais loolu. nee nañ 63 pour cent de taux d'exécution mais mën a nekk 63 pour cent de loolu lañ fa def. de nañ ma wax ni leneen lañ fa def ndaxte am na ay dëkk yi nga xamante ni daanuñ am ay ay ay ñi fay yeew yu toll nii ay ñeenti junni doomu aadama. wala lu ko ëpp amuñu courant amuñu ndox amuñu tali ñooñu ñu ngi ci région boobu donc rax ci dolli prix yu yokku mbéy mi dematul noonu càmm gi dematul noonu àll bi ci boppam sax yenn yi nga xamante ne da nga ca war a witt pour mën a dem jaay mënatoo ko def daañu may ñeneen ñi ay permis pour que ñu ñu ñu gor suñu garab yi et puis yóbbu di ko dem jaayi Gambie yooyu yëpp dara donc nit ñi moom la ñu meree. parce que bu bari moo génn teeru ko de. mais lii fa ñëw ci doomu aadama gàmbi ak Guinée-Bissau lañ leen jëlee ay kaar indi leen. Hmm. loolu mën naa la ko certifier te mën naa la ci woon ay ay nataal yu bari. da nga xamante ni c'est des véhicules ay ay oto Gambie la ay oto Guinée-Bissau la yooyu lañ leen jëlee indi leen jóor leen parce que nit ñi dañoo bañoon dem wuyu ji. Hmm. soo jëlee ci set collectivités territoriale yi nekk pakaaw Euh, donc ñooñu dañu ne woon duñ fa dem population dañ ne duñ fa dem duñ dem Sédhiou dañuy taxaw ci barrage bi nga xamee ne moom la ñuy wax barrage Aline Sitoé ba nga xamee ne bi mu yàqu man maa ko defaraat ci barrage boobu lañ ne dañ koy xaar bu ñëwee salaam bu ñëwulee salaam donc population yooyu nanguñu dugg ci res ci auto responsable yi donc xam nga ni mbir mi du ci responsable yi. du sëriñ ñàkk a ak yooyu ku ci nekk ak sa commune la. gagné nañu bu ñu nga xamante ni jamono ji nga xamante ni ñoom seen élection jot na. gagné nañu seen commune locale yi. mais léegi élection nationale jot gagné wuñu lan moo ko waral parce que majorité bi bu ñu koy jox Macky Sall lañ koy jox. Mm-hmm. du ñoom lañ koy jox. joxuñu ko seen bopp. donc moom moo am problème boobu population yi loolu la ñu xam dafa war a xam ni population yi léegi dañoo ràññee. Mm. xàmmee nuñu seen i ndeyjoor ak seen i càmmoñ donc lu leen njëriñ. xam nañ ko lu leen gàllankoor xam nañ ko donc Macky Sall dafa nekk gàllankoor ci ñoom. moo tax ñu sanctionné ñu waxaat ci wàllu dund gi sànq juñu nga ko mais euh, problème yi nga fi wax yépp est-ce que mënuñu jàpp ne solution mi ngi waaj a am bu ñu gisee tey sécurité alimentaire ni mu ñoree gouvernement bu bees bi ba ñu jël ko sax boole ko ci ay compétence su ministère de l'agriculture Aly Ngouille njaay jiite ka waaw dama ne d'abord benn benn problème moo am mooy que euh, souveraineté alimentaire warul mën a féetee ci benn ministère kooku waru koo waru ko waru ko yore waru ko ŋàng. ndax lan ndaxte du compétence am domaine la. domaine ay secteurs yu bare ci nekk ministère yu bare moo ci nekk. lu ci néew néew néew néew néew néew sécurité alimentaire souveraineté alimentaire juróom-ñeenti ministère mën nañ mën nañ ko seq. donc soo soo jëlee li nga xamante ni mooy kilifteef bi nga dem jox ko benn ministre ñeneen ñi lan la ñu ci. du leen jox ordre ñu koy def. te du leen jox ordre donc sur la base de cela nga xam ni dafa juum. fu mu ko dugal loolu mooy premier erreur bi nga xamante ni donc du mbir mi mën a mënul jëm kanam deuxième bi mooy que lu mu ci nar mooy que amoon na benn programme bi nga xamante ni bind nañ ko fii ci biir Sénégal bu ñuy wax PNASAR mooy programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience à peu près ay quatre cent et quelques milliards la woon donc loolu soo ko jëlee woon nga dugal ci xaalis boobu dana mën Euh, régler problème bi ci ay département yu bare ci biir Sénégal lu ci gën a néew muy vingt département mais defuloo loolu nga ne léegi ay juróomi junni milliards ngay jël dugal ko ci pour lan fii nga xamante ne dañ la wax ni boo fi dugalee quatre cent ba six cent milliards nga saafara lu bare. waaw ah, tubaab dañ ne qui peut le plus peut le moins. Ah, mais nga ne léegi loolu daal moom yow daal moom euh, sa say service ñoo ko ñoo ko defar ba pare bokk ci ay nasaraan yi nekk nga xamante ne ñoo fiy liggéey ci biir réew mi ñoom yëpp bokk nañ ko ba valider ko Union européenne valider ko coopération canadienne valider ko nga ne loolu yëpp daal da nga koy jël nga dugal ko ci mbalit bi yow daal juróomi juróomi junni milliards moom ngay teg pour lan. xëy na bee moo nar a gën a ëpp impact. pour pour c'est c'est pour roñ encore sunu xaalis. Aliou Sow sénégalais lay def loolu lay def lan lañ ci parce que programme bi nga xamante ne da nga ne ministre bi bindal ma programme moom waru ko bind ki war a bind teguloo ko ci yoonam ci ci loxoom léegi nga ñëw ministre bi parewul bind programme pour jox la ko nga ne noo juróomi milliard juróomi junni milliard laa ci def programme bi nga gisul parewuñu ko bind loolu lu muy loolu muy niroo càcc rek loolu rek lay niroo du deneen léegi nga xamante ni bind nañu ko ba tënk ñu teg ko si kaw taabal nga gis ni lii lañ ci dugal nga ne waaw lii laa ci war a dugal mais lii nga xamante ni parewuñu ko yow nga daal di naan nettali nit ñi naan naan nit ñi bon ok euh, juróomi junni milliards laa fay dugal nañu waay nañu bàyyi loolu li sàcc ci senegal doy na sëkk ak barke nanu arrêté. léegi luy solution bi secrétariat exécutif bi nga fi jiite woon ba tey mu ngi fi. ba mais mu ngi fi mais lan lan lan lañ ko lan lañ ko bàyyil. mënul lu bari joxuñu ko moyen. ci lii may gis ak lii may dégg donc amuñu moyen yooyu seen prérogative yëpp pratiquement dañ ko. jël seddale ci yeneen i yeneen i ministères yi yeneen i services yi. Hmm. njëriñam bareetul. ala njëriñam donc. lii may wax rek souvent fu lay jaay daxaar ku amul fulla nag moom munoo munoo munoo munoo munoo régler yenn yi voilà. jërëjëf Ali Mohamed Sega Camara njiital euh, parti wala mouvement pour le parti de la construction MPC euh, di tam expert ci sécurité alimentaire amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey jërëjëf. jërëjëf jërëjëf euh, di la gërëm di la sant di nuyu waa rédaction bi. di leen gërëm di leen sant te di gërëm di sant direction bi. direction Rewmi FM. waaw Rewmi FM.